fait euh, pour moi le, le voyage de de Mélenchon il trois fiascos de yu dal Sonko xam nga Mélenchon bi mu ñëwee Sénégal am na activité bu mu def médias yi couvrir ñu ko mooy bi mu demee Kër Senghor il a rendu un vibrant hommage à Senghor un bel hommage comme c'est un orateur un tribun extraordinaire il a l'un des plus beaux oh, beaux hommages yu yi mës a rendre président Senghor pourtant yow dégg nga fi Ousmane Sonko ne Senghor koo reyoon du hmm. dégg nga fi mu ne système bi système bi moo tax muy def politique or le père fondateur du système c'est Senghor so Sonko indi na fi nit koo ko rendre hommage Sonko euh, benn beneen fiasco bi ku ne xam na ne diggante Cheikh Anta Diop Cheikh Anta Diop ak sengor ju bokkuñu woon benn jublu. bokkuñu jëmukaay. bokkuñu jëmu Sonko moo ne Ousmane Cheikh Anta ci figure titulaire am yi la bokk maanaam ñi muy roy ci politique. ak Mamadou Dia ak Mamadou Dia. Euh, Mélenchon ñëw Sénégal rendre hommage ki nga xam ne moo nekkoon principal adversaire u Cheikh ak ki nekkoon principal noonu Mamadou Dia mi ko tëj cib kaso muy un fiasco mais beneen fiasco bi c'est l'homosexualité Ousmane Sonko Sénégal yépp a toog dégg ko mu ne l'homosexualité n'est pas acceptée mais il est toléré dañ koy gérer muy fen wu rëy parce que luñ réew mu ñu toléré homosexualité kenn du fa def ca code pénal ba ne ku ko def dañ lay jàpp tëj la ban laa tëj ba juróomi at kos mais il y a deux dans son discours quand am na deux am na beneen am na beneen phase de son discours boo xam ne. Euh, on n'y revient pas. loolu daa ci la mu wax la mu wax lu njëkk la. à la limite bon. non sur la question de l'homosexualité. non non non lan nga wax xam nga loolu dama ci dindi dara. parce que loolu dëgg la li mu bëgg mais wax tama d'accord ceeb moom ma di ko weddi déedéet c'est-à-dire la partie de son discours qui concerne l'homosexualité que tubaab bi dund na ko imposé loolu man d'accord na moom parce que man loolu laa gëm dama jàpp ne li le le nam tuddati euh, c'est-à-dire le le particularisme européen bëri su ko jox waru as revêtir un aspect universel c'est-à-dire européen bu leen neexee ñoom góor di takk góor jigéen takk jigéen ji góor di doon jabar jabar jigéen di doon jëkkër bu leen neexee sa seen affaire la waaye bu ñu ko impose d'accord man su ko ci ko mais li ma d'accord tak moom te nag moo ko wax moo ne au Sénégal l'homosexualité est tolérée et ngi koy xaar ma bu ma coupé hmm. loolu du dëgg ne li gën a garaaw du loolu kilifa gu toll ni Ousmane Sonko ay junni ay ay millions mu peut xale topp ci moom nga toog ne xale yi homosexualité dañ koy tolérer nañ koy gérer est-ce que loolu mënul nekk sax incitation à l'homosexualité mais mais xaar ma ko ne fen bi dama la wax du point de juridique c'est faux parce que l'homosexualité est réprimée par par le code pénal sénégalais mais bu dee suñu ñu nit Sénégal yow dégg nga bëgg démb ci kaw lax koo xam dañ ko jiiñ homosexualité xamuñ sax moom la am ñu génn suul ko ñu sulli ko lakk ko réew mu ñu tollee homosexualité dañ fa def loolu waaye léegi sëñ Mountakha xalifa général des mourides mi bind ci këyit ne daa bëgg ñu criminaliser l'homosexualité sëñ Babacar man Mansour mi bind ci këyit ne daa bëgg ñu ko euh, criminaliser l'homosexualité euh, euh, tous les xalifes généraux yi ak ak monseigneur Benjamin Ndiaye ñoom ñëpp ñu bind ne dañoo bëgg ñu criminaliser l'homosexualité kon Ousmane Sonko ñoom ñii li ñu wax dañ ko gëmut. mais Moussa xaaral maa waaye bu ma dagg. kon kon sëñ kon sëriñ si ak kilifa yi diine yi catholique comme musulman ne ñoom dañoo bëgg ñu criminaliser la kon ñoom dañoo tal ñu dëgg gëmuñu li ñu wax mais ñoom dañoo bëgg ñu criminaliser parce que toléré wuñu ko ànd sàmb jikko yi kay wax dëgg yàlla ku ne dégg nga leen ñooy nañ criminaliser am te kon Babacar mujj mujj a génn ci bo loolu comme na jàpp ne le voyage de de de Mélenchon c'est mais mais Moustapha sur sur sur sur sur cette question de l'homosexualité euh, ñun entendement bi ñu ci am ak les occidentaux bi ñu ci am dafa wutee euh, résumant le voyage de Mélenchon et le discours de ousman Sonko beaucoup de médias euh, médias occidentaux et d'éditorialistes occidentaux ñaari mbir la ñu jàpp dañ jàpp ne Sonko dafa prôner la fermeté la rupture dans les relations avec la France d'accord beneen mbir bi ñu jàpp ñu ne Sonko Ousmane Sonko euh, prône le rejet de de de de de l'homosexualité ñoom d'ailleurs ñoom noonu la ko ñoom noonu la ñu ko gisee may mun a léegi nag Sénégal may mun a européen yooyu ngay wax jëkkuñu ma déglu discours Ousmane Sonko. waa mais baax na may ma ma terminer léegi nag dafa am deux tempos dans le discours de Ousmane Sonko. moom ni ko Macky Sall xawee waxee woon ne. dañ leen nangul seeni réalité da ngeen ñu warul war a nangul suñuy réalité njëkk naa wax loolu mu ne eh, yéen am ngeen seeni réalité ñun ñu nangul leen ko mënuñu fi ñu nar a fi ñu nar li nar a indi problème na eh, nar indi problème dans les relations entre l'Occident et le reste du monde mooy ngeen bëgg a ñëw eh, imposer ñu Euh, li nga xam ne moom mooy seen réalité wala remettre en cause ñun suñuy réalité loolu njëkk na ko wax mu mu leer deuxième chose est-ce que quand il dit je ne défends pas l'homosexualité <laughs> est-ce que quand il dit que l'homosexualité est tolérée on gère est-ce que deful référence euh, à une pratique sociale c'est-à-dire c'est-à-dire ci su léegi. la c'est une pratique sociale non non non non non non non non waxuma loolu de est-ce que ah, deful référence c'est-à-dire da ngay gis ci koñ yi. Euh, da ngay gis dans certains quartiers. Euh, bon bu puisque c'est une question sensible bëgguma dugg moi j'ai connu da ngay xam ñu ne kii góor jigéen bu mag la da ngay gis ci yenn ay temps euh, famille bu ñu daan marié. dañ daan organiser sabar góor jigéen yi jógee ci yenn quartier yi ñëw fekk ñëw fekk sabar bi est-ce que est-ce que du est-ce que du kii situation sociale boobu loolu la bëgg a décrire en disant je ne le défends pas hein, en disant que c'est toléré euh, c'est géré parce que on cohabite avec des homosexuels ah, non je ne vous dénie pas le droit on cohabite avec ah, des homosexuels je ne vous dénie pas ce droit non non non non non dafa dafa am un autre point de ça de son discours bu ñu taxaw dama déglu Jacques Mélenchon wax déglu Sonko wax gis nga bu fekkonte ne Sonko tudd ba am affaire homosexualité Jean-Luc Mélenchon du ci de ça parce que dans son premier discours il a pas de mention d'homosexualité quand Sonko lui a a dénoncé l'homosexualité le fait que eh, yi di ko jéem a imposer le Jean-Paul le Jean-Luc Mélenchon ñëwaat ne ko man Jean-Luc Mélenchon man maay député bi jëkk légaliser lu le mariage homosexuel xam nga booba lan la Ousmane Sonko waroon tontu ne ko man ak sama président la République bu ñu amee majorité parlementaire. d'accord de bi ñu jëm dañuy criminaliser l'homosexuel. d'accord loolooy tontu bi comme promesse bi mu defoon. loolooy bi waaye tontu Jean-Luc Mélenchon mu fëggub dënnam ne man maa jëkk a légaliser l'homosexualité en France tontu ba du de. dañ koy tol c'est toléré du gérer tontu ba mooy on oh, nous Sénégal nous allons criminaliser l'homosexualité. mais yow loolu la Sénégal di doon xaar ci moom. d'accord xaaral xaaral xaaral xaar ci ñoom. loolu euh, euh, waxul loolu waxul loolu moo tudd moo tudd ñaari baat yi baat yi bu ne daf ne toléré toléré bu bu boo koy analyser ak ak gérer. loolu mu wax du dëgg. parce que le code national réprime l'homosexualité. sunu aada les actes contre les actes contre non le code pénal sénégalais même même sur sur cela le législateur n'est pas allé jusqu'au bout de sa démarche le code pénal sénégalais réprime les actes contre nature. mais euh, homosexualité acte contre nature. non mais tudduñu amul amul amul amul homosexualité. non mais mun mais mun non. le le code électoral le code pénal sénégalais je crois est plus loin même que la notion de LGBT. parce que daf ko englobé et ça date de xam ne réew mi Sénégal mii. léegi xaar naa rek xam ne li tax Ousmane Sonko li wax du dëgg. Sénégal depuis 1966 li ñu fi condamné ci mbirum homosexualité bu la neexee nga dem jàngi histoire yonent bi woote na sallallahu alayhi wa sallam Seydina Mohamed ba jóge fi ñeenti xalifa yi topp ci moom li Sénégal condamné ci homosexualité ñoom condamné wuñu ko kon réew mi du réew muñ toléré homosexualité. buñ ko fi toléré woon boo bu homosexualité dee ñu wut ñu bàyyi ñu suul ko ci bàmmeel yi. waxuma ne buñ homosexualité buñ ko fi toléré duñ solli néew teg homosexuel làkk ko kon wax jiit non.